ngi doon suivre lii mooy liñ leen mën a jox moo di Nabou Leye bu ñu sukkandikoo ci procureur ba mandat de dépôt maanaam fi ñu toll nii ñoom ñoo ñooy présumé maanaam ñoom la ñu njort ne ñoo def mbir mi mbir mi nag mën na tàmbali léegi mais xamuñu kan lay jeex tant que ñu leen ba mu jeex tant que ñu leen ba daan leen tant ñoom ñoo ñe defuñu li nga xam ne moo di appel ba maanaam daan définitif amul dañ leen di jàppee comme ay présumé du ñun ñuy jugé waaye liñ leen mën a wax mooy li procureur jàpp li enquêteurs yi jàpp li waa dig jàpp ñoom la ñu njortu ne ñoom ñoo ñee ñoo nekk ci mbir yi beneen bi mooy Nabou Leye bi nit yi doon wax ndaxte ni mu meloon nag moom ni mu xaritoo nag moom léegi nag leen mooy ci am bu nekk ne Nabou Leye majeure partie les sénégalais bëgguñu woon mu bokk ci mais bu ci bokkee doore dorénavant ci réew mi di Sénégal jàppal ne mbirum amitié niri nit yi dinañ ci amati maanaam mbégteel dina am ndaxte sénégalais kenn bokk ci woon jërë ngeen jëf l'objectif aussi la presse lenn moo nekkoon fi liggéey ñëw joxe ay information beneen bi mooy fii enquête bi yem fa lañ ca mën a yem foofu lañu ca mën a yem a gum jërëjëf loolu lañ ci mën jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf moom voilà kon ñu dem ci beneen sens bi la pour mën a am li nga xam ne mooy réaction. wàccee leen loxo yi xaalis boo xamante ni tekki wu loo xaalis boo xamante ni daal mooy loolu daal mooy loolu métti na métti na ba ci kanamu yàlla ah depuis démb ba léegi sax ñu ngi rey